mboolem délégation bi mu ànd ak te bàyyiwul kenn ca nañu liggéey ni mu ko waxee ko nuyu ci turu sëriñ bi Cheikh Mamadou Mountakha ñaan mu yàgg fi te ànd ak yëpp di leen jottali kàddu yi ci liggéey ba ci turam ginnaaw bu mu la balalee jàmm ci dëkk bi di rafetlu tànk yi nga xam ne dox nga ko te njëkkoon ngay doon ñu leen wax lu mel nii gannaaw bu ñu daan dénkee ñu ne président nga ñëw Touba ngir jokkoo si ak ñoom ñëw siyaare si sëriñ bi di ko rafetlu bu baax ndax yàgg nga ko def ndax njëkk ngay toog fii fi nga njëkkoon a nekk di ay pexe màggal Touba bu ma sànni bu ne kenn du la fi jiitu. suñu yëf daana ci rajo. kon loolu jëfoo moo def sëñ bi nga xam ne taxaw boobu ci mbay mi ngir jàppale ko commission bi taxaw la loolu itam ñu ngi koy rafetlu bu baax ngir xam ne nit seen la ko war mu ko gis nga ko di sant parce que ci sant di sant di sant mu war a ci àll ak liggéey bi Serigne Touba ñu bi suñu sa fekk di de sant bu ko waxee ci te hmm. dox mooy ñëpp source mooy yéene hmm. ji. jëf ca topp ndax suñu borom balaa fay jëf yéene dafay borom kon ñu ngi lay bu baax yàlla suñu borom. gën laa kattanal defal la ndimbal ci liggéey bi di rafetlu it xalaat yi nga xam ne am ngeen ko ci wàllu jëmbatum garab yi ndax loolu bokk na ci li nga xam ne mooy defar euh, taw bi lu bare bare ak ci dundin nit ñi li ci feeñ kon loolu programme bu yaatu na boo xam ne ndax garab moom lu mu gën a manqué rek ay gàll ko di gën a kon ñu ngi koy rafetlu di ñaan itam wóolu jure ji ñu ci am yàlla dimbali la ci ba mu àgg li ci des nag rek mooy li jëmoon ci wàllu matt mi ci màggal gi ndax dafa bari ci taalibe yi fi ñëw di ko jàmbat kon yàlla def na ne nga joxe nga ci ndigal comme loolu moom mooy liñ la bëggoon a fàttali ma rek ndax euh, dëkk bi ñu fiy def ci teraanga ci màgg gi dafa bari ndax ci atum 2016 bi natt euh, ci xayma ñu doon def wàllu étude yi ci nag yi nag yi képp tolloon na ci téeméeri junni ak ñeent fukk yu teg na boo ko tax xar yi dinaar yi kon Touba li ñuy jëfandikoo neexuta nat kon loolu bu ci am yoon kon dugub te ndax xëy na loolu àggagul foofu ak jàpp nañ dugg ci ak xool rek ci seen wàllu liggéey ndax mu ngeen di fexe ba remplacer matt yi nga xam ne baaxatu waaye ndimbal mënu ci ñàkk dugg ndax bu ci dugg rek dana xaw a métti ci nit ñi kon loolu mm, ndegam jël nga xamal nga ci gis kon loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax di ñaan itam ndax day diggante bu xat-xat diggante gor garab yi ak diggante jëmbat bi ndax bu garab yi eh, manqué itam loolu loolu ñëpp ko yëgandoo kon diggante bu xat la loolu day yéeme nga xam. ci seen wàllu liggéey ñu ngeen koy natte ay di ngeen koy organisé mm-hmm. waaye daal ñaar yëpp ñu mat a sédd la ndax moom nit ñi àggugu ci mën a togg gaz xëy na yooyu àggugu fa xëy na jamono eh, ba jeex ci réew mi itam loolu bi ko yëgal kon diggante bu xat la ndax la yoon loolu leen fi bàyyi waaye ngeen sóoraale ko rek jeexal kàddu yi ba la guddal ñu ngi nuyuwaat ñëpp di santaan santaat bu baax di gërëm da yóbbante bu ñëw ci président bi nga xam ne ci ndigalam ak turam ngeen fi teew di ko jotlee kàddu yu sëriñ bi ak i ak gërëm di sant di ci sa yitte ak sa taxawaay la ñaanal suñu borom kàttan la defal ndam ci mission bi ndax gis nañ ne euh, noppaloo yëngaloo fanaanaloo buñ la fi tegee ba tey gis nañ yitte gi nga jox liggéey bi nga def te loolu ëpp ko solo te loolu ñëpp noonu la ñu war def noonu la ñëpp taxaw kon ñu ngi ci soññaat bu baax ngir xam ne buñ la tegee ci barab bi réer mi man nga war def waaye gis nañ ne yaa ngi ci taxaw te buñ ko gisutoon tam buñ ko seere wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu